alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah Maulana Cheikh xalifa mi nga xam ni moo fi wutu mag ñi fii nag teblewuñ toogaayam bi ba tax na ñu ngi dagg ngant bu baax ci ginnaaw nuyu ko ak ziyaara ko ci kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko fii ci kanamam te bokkul ci teggiin mag mu toll ni toog kilifa gu toll nii nga yëkkati ci kanamam su ko defee kàddu yu nuyoo lay doon ak ziyaara ak présenté mbooloo mu am solo mii nga xam ni ñu ngi nii ci kanam sëriñ bi ci sunu njiit Mawlana Cheikh Alxaaj Abdullahi sami yu jëddi yi fa tabarakallahu di doomu sunu papa Moustapha ibnu Cheikh Alxaaj Abdullahi ibnu Cheikh Alislam wa Saadat Anam Mawlana Cheikh Alislam Alxaaj Ibrahim Niass mu ànd ak mbooloo mi am solo mii ci mbokk yu baax yi nga xam ni ñii ay doom lañu ñii ay sët lañu. defe nag sëriñ bi mbooloo mi ñëw nañu ànd ak seeni mbooloo ñi am. ñi ci biir ak ñi ci biti ñi ci des ñi ngi ànd ak ñoom ci internet ndax ñi ngi ci biti fa tabarakallahu ànd ak ñun ci kuréel gu am solo gi nga xam ni mooy waa kër maam alxaaji Abdoulaye Niass li ko sabab fa tabarakallahu lu yaatu la xam naa du fi xaj waaye rek ñu wax ni kuréel la goo xam ne daal lëkkale nañ seen bopp ngir def li ñuy tuddee idaafa ci kër maam alxaaji Abdoulaye idaafa nag ba sa bàyyi di wax Mawlana Cheikh Alif Alxaaji Mouhamed dafa wax ni abdun karimun ida man daafa murtafiun tilka al idaafatu minha xaf xafdu lam ni su ko defee ñun bañ a wàcc rek ak bañ a suufee loolu moo ñu dugal ci dajale suñu bopp ngir tënk suñu ginnaaw ci moo Mawlana Cheikh Al Hadj Abdoulaye Niass ci liggéeyam bu mag bii fa tabarakallahu jëmm jooju nga xam ni yaa ko gën a xam ñépp ni nga koy waxee sax ni nga koy waxee nit ñi yow ni nga koy waxee amul kenn ku koy waxee noonu fa tabarakallahu mbooloo mi ci tënk bu gàtt ci ñëw nañu ànd nag nii ngir ziyaara si la ngir xam ni rek yow kenn nga ci xadara bi kenn nga ci pays bi awal mara ñu génn ñoom muy seen première sortie ngir ziyaara si la ndax li ko waral incha allah xam naa bu porte parole duggee incha allah dina ko wax dina ci dina ci tënk tuuti waaye mu wax rek ni ñoom ñii daal ak am mbooloo la moo xam ne dajaloo nañu ngir ci kër Maam Alxaji Abdoulaye gii nga xam ni mooy këram gu mag gu sell gi ci fépp ci ñépp ngir ànd da euh, boole boole suñu bopp ngir dajale suñu bopp ngir dugg nag ci ximaaya maam alxaj abdalaay ndax ximaaya boobu nga xam ni xam nañ ne sax mi ngi diri sembaanam ci innaa nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafizuun waaye terewul itam bu boobaa ñu dugg ci biir ximaaya boobu ngir bokk ci ñi nga xam ni danañu dimbale kaaraange ci kër maam alxaj abdalaay kon nag fa tabaarakallaahu ci tënk bu gàtt dañuy yëkkati kàddu gi jox ko sëriñ Cheikh Omar jox ko Seydina siise mi nga xam ne mooy porte parole mbooloo mi mu jottali kàddu yu gàtt su ko defee incha allah ñu jox la sa kàddu bismillah seydi euh, seydi wa moolaay wa abdulillahi qadimi baaqi wa fi jalaali wal jamaali hamdun wa fi kamaali masalun wa abdun bi fardi wal jamaali naqulu hamdu wa muntaha jamaali naqulu abdu wasalaatu wasalaamu ala man busiru rahmatan lil alamin basiran wa nasiran ayna rahmati rabbaniyati wa ayna alxaqi lati tatajalla minha ruus alxaqaiqi wa talxati alxaq bilxaq kanzi alazami wa ala alihi salaatan tuarifuna biha yow wa radiallahu taala an mawlana xatmi tijaani sayidil aarifina wal mumidil kubraa mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad al islami tijaani radiallahu taala anhu wa an jami xulafaihi wa ala rasihim sayidi mawlaya aljaddina alkabir alxaaji abdullah ibn muhammad alqailu inni xalifatu tijaani saami wa inni lahu wa inni judtu lahu mawaahi ana xalifatu tijaani saani wa inni jibtu lahu lmawaadi radiallahu taala anhu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu maa ngi nuyu mbooloo mu fi teew uh, góor ak jigéen mag ak ndaw di jiital ci nuyoo gi suñu wajur wu tedd bi nga xam ne moo teew ci kanam di suñu sëriñ di suñu sang di suñu soppe di suñu référence ci diina ak ci tariqa ak ci lépp ñu koy nuyu di ko wàcc wàcc waaye ñu ko yàlla di ko ñaan yàlla tawfiix ak fan wu gudd ànd ak wér yàlla sàmm ko wattu ko ndax tiitar la ci diine ji tiitar la ci tarixa bi tiitar la ci njabootu maam Alaaji Abdoulaye Niass te loolu ñëpp xam nañ ko te ku gis li ci moom ak tawasulaat yi ñu def ci moom danga xam ne loolu laa borom man xasaru bi waadixil bayaani min bayni kulli biitin wasulaat yaa biidu yaa sóolu wa yaa awdun wa yaa ajamun fàttali tey ci àggsi bi nga jëloon fii xanaa xalifatu xaali Muhammad moo waxoon loolu bi lisaani Cheikh Tidiane Abdoulaye ci làmb mi Cheikh Tidiane la waxee loolu yéen araabat ajamat yéen ñu ñuul ñi yéen ñu weex ñi ñëw leen ci man ma tëbb leen ci leer ak Cheikh Ahmad Tidiane Abdoulaye kooku laa taroon mu jur doom jur mel ni nga xam ne xasanatun bil xasanati alaayatullahi yes kon Seydou Ahmed Khalifa suñu bàyyi suñu sëriñ suñu soppe ñu ngi lay nuyu di la màggal di la tatagal di la ndokkeel te di la ñaan yàlla fan bu gudd di nuyu mboolem ñi fi teew ci ay kilifa ah kàddu gi nag du noonu ndax yàlla di def ñi nekk porte ci mbooloo mi nga xam ne dama sosu yàggul noonu sax li tax mu sosu du dara benn yéene rek la mooy liggéeyal moom alaaji Abdoulaye ak ah, fexe gën koo xamal àdduna bi gën koo xam jox ko ak xam nga xam ne moo ko ndax ku na xam ne leer leer bi dañ àdduna yépp tey mu ngi jógee ci maam alaaji Abdoulaye Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ak lim def tey yëpp ci tariqa wax na ne ana xasanatun min xasanaati abi Alaaji Abdoulaye benn yiw rek laa ci yiw Alaaji Abdoulaye mu ne boo gëmmee lamb li sama baay am koo ci daj rek mën naa fa saa kon kooku yàlla feeñal ko fii ci Sénégal ci Afrique ku ñu war a jox àqam la ku ñu war a jox gëddam la waaye ku ñu war a fonk la ku a yëg ndax bu fekkee waxuma ne mooy lamp bi gën a mag kii leeral Sénégal waaye ci lamp yi gën a mag kii leeral réew mi ci la bokk waaye xemul sax ci Sénégal leeral daj romb na Sénégal dugg Afrique bi yëpp waaye dugg mbooleem dégg nga alamul islam yi fu ne leeral dem a liggéeyal la ku jar a taxaw ku jar a màggal la ku jar a wane ba nit ñi gën koo xam ndax bëgg nit ñi xamee rek dañuy jëriñ xalaa kulli xaal ñu wokkaat yi du mën ko dund loolu mooy euh, yéene mbooloo mi dama ci ndigalu kilifa yi su ko defee ñu jox ah, suñu coordinateur muy Cheikh Omar Faye nga xam ne mbooloo mi bu taxawee ci moom la ko yàlla jaarale ndax ci moom la yàlla ñàkk a tàqal toqal xol xalaat ci xolam ah, mu wooñi si ñu woyu si ko ci ndax ñoo bokk lu ñu yëngu waaye suñu waajur yi nga xam ne ñu yépp gis nañ taxawaayam ci réew mi mu mënoon na toog ci këram gii taal kii moom koy ëppoo dégg nga waaye gis ngeen ko fu ne ci plateau télé yi mu toog di jàngale lislaam ndax xam na ne xam-xamam nit ñi dañ ko soxla ku war a déglu wax la ndax nit ñi war a déglu la ndax xam-xam bu ñu yoree woo senegal woo ñoo sàggan mukk ba mu dem te xam-xamam muy génn fu ne di sonn te yëpp mën na ko ñàkk fekk bëgg lislaamam ngir waaye loolu yëpp wilaasa xam ne daf ko doonee ci maamam Alaaji Abdoulaye yàlla may ko mu bokk ci magi senegal yi nga xam ne jël na jaas jaar ngir lislaam taxaw ala kulli xaal kon nag ñu ngi yem dafa kat yi nga xam ne yëkkati nañ ko ndax ñun moom gone yi ndaw lañ xam ne sax ñu war a wax ala kulli haal maxaw rek la ñuy wax bu baax di nuyu mboolem ñi fi teew ci góor ak jigéen mag ndaw di jiital ci nuyoo boobu fadilatu cheikh ak docteur Cheikh Ahmed Khalifa Niass di suñu baay di mufti Sénégal laa koy oowee ndax gis naa ne réew mi amut kenn ku dab lefam dégg ci xam-xam loolu ku ko wax ak ku ko waxut ñoo ci bokk em gagloo nañu bari ci xam-xam waaye firi na fii ay masala yoo xamante ne dëgg-dëgg umpoon na ñëpp loolu ñëpp ko gis fi ne dégg loolu amatul sikk ñu ngi koy nuyu di ko wàcce wàccuwaayam ci turu fédération ànd liggéeyal Mame El Hadji Abdoulaye Niass comme ni ko naati poros mu waxee léegi duñ ci mën a maam alaaji radiallahu taala léegi ki njëkk wax wax ci turu kër gi wax na ne maam alaaji ren la am téeméeri at ci suuf muy benn xarnu ci biir loolu maam ñépp xam nañ ne jihaad na ci jaasi ànd ak maba ànd ak sayermat yi jihaad muy benn maam matal na juróomeeli ponkam muy xaj dégg def na ko maamalaaji moom rek moo fi magum tiijaan bu dem ci jamono bu jafe dem jëli ijaaza itlaaq dégg nga ak ay secret indil ko mag ñi fii ci senegaal lii dégg nga soo demee ci téere yi danga ko fekk loolu mu laana Cheikh Ibrahim Niass wax dégg nga kon loolu ñépp ko teg bët kooku nag fédération bi li ko tax a jóg duñ ci guddal dañ koy wax mu leer li ko tax a jóg mooy défendre ak wane œuvre maam ci te loolu li ci jiitu mooy ay doomam ak ay sëtal ak ay taalibeem léegi ñu ñëwoon tey nag ci suñ kër bàyyi suñ sëriñ Cheikh Ahmed Khalif Niass mi nga xamante ne moom mooy président d'honneur u dégg nga groupe bi ak fédération bi dégg nga toftal ci rakkam dégg nga toftal ci rakkam mooy parrain bi toftal ci rakkam Baye Mbaye Niass ñu gën koo xamee ci Baye Mbayam si dégg nga muy Aboubacrine al Musanna ñii ñoom ñooy parrain yi nga xamante ne ñoom ñoo ñooy parrain fédération bi incha allahu ci tënk loolu la woon ñu ngi président bi moo nekk nii mooy alaaji Abdoulaye Niass ibnu Cheikh Moustapha Niass ibnu alaaji Abdoulaye Niass ibnu Cheikh Ibrahim Niass waaw Seydi Alaaji Cissé mu ngi nii dégg nga waa Medina mooy vice président dégg si Abdoulaye Sylla moom moo nekk nii moom itam waa Mérina la dégg nga Cheikh Mohamed Diop mu ngi nii Cheikh Ibrahim Dia dégg nga dégg nga dégg nga Seydou Diop dégg nga Cheikh Cheikh Ibrahim Niass Jamil moo nekk nii waaw ak soxna Aminata ñëw na président bi ak soxna euh, Ndeye Cissé vice présidente euh, ñu ngi wax ne daal kuréel gi mu ngi nii kuréel gi fépp ca na ca Koosi ca Taïba dégg nga ba sax suñ mbokk yi waa kër alaaji Omar Thiam bu Kaffrine ñoom ñëpp ñu ngi ci ñu ngi ci ngi ci kii bi fépp fu njabootu maam alaaji nekk rek ñu ngi ci kuréel bi waa sëriñ bi daal loolu moo newoon kàddu yi hmm. ñu jégg lu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah am naa yaqin certitude ne fi jógee woon aljana parce que Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu dafa wëy Cheikh Tidiane ne naziru جمعة أو من غيره إذا سواء ناظر الشيخ آمن كل يوم ما جمعة أو من غيره إذا سواء قول الشيخ كترجمان رسول الله دون يقين وليس فيه قفاء doon génn bésu aljuma aljuma ju ne képp ku ma sa yaram aram na safara bàyyi mu ne du aljuma kese aw min gayrihi lu dul aljuma sax boo gisee Cheikh Tidiane sa yaram aram na safara te mimbaru or bi ci ci yowmal xiyam Cheikh Tidiane moo ci ray ray haisul minbari la daa yowmu jam'i thumma yarqaa lahu alayhi istiwaa'u malaaka yi xam ngeen lan la ñuy wax inna haza imaamukum summa haza naala minhu maa naalahu kurama maa leen di ndokkeel ci seen imam bii ki nga xam ne muy imam ñépp nit ñi dañuy wax ne Cheikh Tidiane waliyu la bàyyi mu ne la am di ya haza cheikh aynul wilayati Cheikh Tidiane mooy jëmmi wilaaya te fajjara min bahri nubuwati safiya lu tax ma ne ku fi toog texe nga tey parce que surtout Cheikh Tidiane lañ toogal wallahi ku fi toog tey taxi nga deretu Cheikh Tidiane lañ toogal wallahi azim te du wax boo xam ne sama làmmiñ la di xalifa Cheikh Tidiane yi radiyallahu moom lañ toogal ku ko xool rek gis nga Cheikh Tidiane yi radiyallahu anhu maam alaaji nag beneen affaire la parce que bàyyi mu ne wa alxaaji abdullahi fi diini wa zuhdu wa raahu wa ilmuhu wa adaabuhu waaye nag wa najaabata awlaadihi bi doomu ma alaaji am loolu rëy kon lii texe alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala mawlana rasulillah sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu suma maam suñu sëriñ suñu soppe euh, suñu lépp itam nga xam ne suñu royukaay la di ko nuyu bu baax di ko jox wàccuwaayam muy xafidu Mawlana Rasulullahi xafidu Cheikh Ahmad Tidiane Chérif xafidu Mawlana Cheikh Alhaji Abdoulaye Niass nga xam ne dundam lépp njëriñ la ñeel islam ñeel tariqa bi ñeel adduna bi ak doxali ñaar dina itam ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla dëgëral taxawaayam yàlla waxtu ko sàmm ko teewaat ko may ko fan bu gudd gudd gudd gudd waa nekk jaay Mustafa sallallahu alayhi wa sallam fédération bi nag ñu ngi ko taxawal ci weer bii ñu génn ñu ngi tudd fédération àndi liggéeyal Cheikh Maam Haaji Abdoulaye Niass Dëkke man nii maay njiit bi sa sët la Cheikh Abdoulaye doomi Moustapha moo laaj Abdoulaye doomi Cheikh Ibrahim Niass radiyallaahu anhu maa ngi ci ànd ak ñoo xam ne kii daanaka xalaat bi ci moom la jógee ndax dañoo gis ne lépp lu xew ci dëkk bi ñu ci ëpp suñu maam bu tedd bii mooy génn di défendre loolu di ko teg ci xam-xam te kenn du ko dindi te ñun daanaka ay sët sëtaatam lañ wala sax ay taalibe yu gën a suufe ci lañ ñu ne nag kon nag mag la ñu war nañoo taxaw jéem leen a wutu tàndu lu ñu mun leen wutu ci mbir mi lépp nañu teg ko ci yar ak teggin waaye nag ku jéggi dayoo nag su boobaa ñu def la defi ku jéggi dayoo comme ñu ko ak defar nañu carte membre yi ñu ci moom leen misoroon def ko comme suñu président Bernard Moussa Faye moom ak rakkam Cheikh Aboubacar Moussana incha allahu ñu ngi ci yow ñaan ak ndigal bu wér nga defal ñu ci ñaan yàlla defal ñu ci ndam te itam bu ñu amee sa ngërmaane am nañ ngërmaane rasulullah am nañ ngërmaane Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane Sy am nañ aleykum wa rahmatullahi taala wa war ngeen bëgg ndax yéen ngi carte boo xam ne yéen ñëpp wóor la leen ni jëmmi bàyyi ji bu fi nekkoon mooy mooy njëkk jënd carte ndax ko xam ni meloon ci alaaji Abdoulaye Niass du ngir jur bi nga ko jur waaye ngir xam bu ko xam kadaalika ay magam ak i rakkam ndax moom dafa taxaw ci digg bi ci maqaama juróom-ñeenteeli doom juróom-ñett mag ko moroo juróom-ñett mu mag juróom-ñett muy fukk ak juróom-ñaar imaam Alaaji Abdoulaye Niass jur te moom laa waxoon ne dañ koy wàññi ci ñeent ñett ñaar benn benn benn benn maanaam soxnaam yi kenn moo ci jur ñeenti doom yu góor muy seen maam Adi Jaw xam ne moo jur Cheikh Omar Baye Cheikh Omar ak Baye Cheikh Yow ak Baye Amañas ak Baye Ngàcce ñeent ngoo aminta caam jur ñett muy xalifa muhammad ak amadou ak aliyu boo ko boolee muy juróom-ñaar keneen jur ñett muy maam mariama biyaa ji may doomi buuri Casamance moo jur maas mariama ak aadi mariama usmaan mariama fukkangoo hmm. nga indi ñaar muy suñu maam ju rafet baax ja suñ maam astu jànq mu jur ñaar muy Baye Mahmoud ak Baye ku ñaar ngoog li ci di ay benn benn ba muy juróomi nit muy juróomi nit te mooy kiñ tuddee Baye El Hadj Malick muy Malick Ramata maam ramatu moo ko jur kenn la moo jur ibrahima mu màkko kulibant dee ko bàyyi ak ki nga xam ne tey moom mooy rakki maam xadi jaw moomu bay mbay e, moom mooy e, bay seexu tijaan di caat waaw fukk yooyu fukki waaw ak ki nga xam ne moo jur Baye Alaaji Mor Seen ba mm-hmm. Baye Seex Tijaan mooy caat waaw mooy benn benn yooyu ma wax mm-hmm. juróom lañ mm-hmm. fukki doom ak juróom ñaar yooyu mooy doomi Alaaji Ablaay Ñas yi nga xam ne dund nañ gannaaw waxuma ñi nga xam ne fekkee nañ ko comme Baye Omar suma suma Baye ñu bokk yaay ak Baye Moustapha mi nga xam ne moom moo Baye Alaaji Babacar ñoo bokk ndey ak baay ak ñu demee noonu waaye ñooñu wëññuñ leen doom yi nga xam ne ñoo doon ñoom laa wax lépp nag li ko waral mooy yàlla li ko yaral mooy wax yàlla ja su fekkee nu ñu rekk a fi nekk danaa wax wax joo xam ne dëgg la te buñ ko waxee ci mbedd mi ñu weddi ko te ñu ko weddi it wax nañ dëgg mu ne yàlla wàccewut alquran yàlla mën ngaa wax ne baa baa rekk la wàcce waaye baa sax wàccut benn tomb ba ca roon baaga loolu rekk la yàlla wàcce ci lépp dañ koo njax laan ba minul jinnati woon naasi tomb booba nga xam ne ci la baa jógee baa comme bàyyi ñas ngeen dégg wax boobu rek gis nga tey moo tax dañu ne min ayna tunqatul baaw xam-xam mi ngi xem ci nga xam nu ñuy tombee baa te mooy toq ba ñi nga xam ne tey dañoo jàng science Euh, ñi nga xam ne tey dañoo jàng science am na buñ jàngee science atomique te mooy li gën tuuti wa man yaamal misqaala darratin yooyu darra boobu misqaal bi darra mooy loolu gën a tuuti pepp suuf misqaal bi boo ko tasee ay tas fa muy xem la nga xam ne moo gën a tuuti ci li gën a tuuti moom la ñuy wax besoin am na ñu koy jàngalee ci université besoin de higue am na sax ñuy wax besoin de Dieu kooka nag moom la yàlla sos luy sosu ca besoin booba la sosoo jant yeeg weer yeeg suuf yeeg njanaaw yeeg lépp loo gis ak loo gisul loo xamul loo xam ci toq boobu nga xam ne daf doon junj bismillaahi rahmaani rahiim ci la jóge kon nag ku gis baag yi dara yënguwut ci yow nga jëm bismillaahi rahmaani rahiim dara yënguwut ci yow boo jàngoon alxuraan ba mu jeexit dara du yëngu ci yow looloo tax yonent bi wax ne rubba qaari in lil qur'aani wal qur'aanu yal'an nekkul lu mooy taalibe waaw kon nag boo gisee gars yi ku ne na sëriñ diw cheikhu diw sëriñ diw nga xam ne yëf yi blouse yi moo naxe blouse yu weex ñoo naxe waaye xaqaayiq yi ba tey na meloon noonu la mel am na fi ñu dem ba wax ne ñoom ci bàyyi lañ bokk waaye wax nañ defewuñu imaam Cheikh Cissé waaw wax nañ ne yëf yi duñ ko doon ci baay ak doom wax nañ loolu waaw ndax meerant bi de baat ba mu mujj wax aleykum bi kitaabillaahi de wa sunnati bi du loolu de wa la dañ koo faas def wa sunnati wa itrati sama ñooñ ñi nga xam ne maa leen meññ wala ma meññ ñi leen meññ ndax garab ak mango mën ngaa dagg ca car la samp ko am garab ak mango ndax mën ngaa xas ca xas ma am garab ak mango ndax mën ngaa dagg ci reen am garab ak mango doom ba rek mooy tax nga xam geneen garab gure yu lool am ker amaana sax mu ëpp ndeyam waaw loolu yàlla def ko mu ne faa ñu bëgg mu soppee mel ni ndox dana dee safara dooma ko hmm? ndox dana dee safara dooma wala dana dee suuf doon ko ndox bu doon dee bu dee kenn du ko doon lu dul ndox lu dul ndox ni moom maanaam nit ñi dañuy wax di weddi seen bopp li gën a doy waar da ngay ko xam ne këram këram gi mi ngi lëndëm tëruus mu toog jàkkaarloo ñu ne awuzu billahi mina seytaani rajim ma ne ndaw lu reeru seytaan yi ngir bu seytaan ah wala loolu ngeen koy ci télévision yi seytaane taxaw ne awuzu billahi mina seytaani rajim ma ne seytaane yi bëri xam nga tax mu jëkkee wala teg ci noonu parce que leer rek moo mën a lekk moo jëkk matam Abbas ne ko sama jëmm jaar fii waaye sama leer daal la paas jël tontu ko kon su fekkee ne boo ko déggee dëgg-dëgg dañ cee dañ cee jublu ceebu jën mu doko kon ñu xam ne kon mën nga caa tudd mën naa nekk laay laay la laa ko doon mën ne laay laay la laa ko doon nga ne ceebu jën mu doko foofu la affaire فيعني قطع أو فأيا ما تدعو فله الأسماء ak loo mën a tudd rek moom la loo mën a tudd rek moom la ceeb jën bi ngalax mi njar mi doomu mango bi raisin bi lu mën a doon rek foofa la boo yem maa tudd rek foofa ñit ñi nag ci farq ak jamu foofu la ñuy amee problème waaye lii nim leeree ci nga xam ne dañ leen a piqué tétanos leer ko ci nga xam ne tétanos bi jàpp na leen bañ a ngay lox di yëngu te kenn yëngalu leen la nekk loolu nag li muy yomb yomb li muy yomb yomb dégg ba tey am na laay wax yoo xam ne ba tey jugut fi am ala qulubin aqfaaluha magasin bu ne mën na ko duy ba mu def magasin buy teg la muy yaatu yaatu ca biir kenn mënu caa dugal benn kilo magasin buy teg nag yàlla na caa kon nag nit ñi seen mooy ki nga xam ne dañ ko indi jëlee ko fay ca kaw dañ ne ko Dakar muy wër xamul benn nu mu war a jaar kër gi kii muy laaj dana ñëw ba taxaw ci buntu kër ga tourné dem feneen bu demee ba kii ñu ne ko romb ko moo ñëw ñëw rombaat ko ci beneen bor bi fekk moom xaar dana ko yàgg foo ko yëgul leer jant ku jël jant bi def ko làmp niital ko gumba ndax dana tax li làmp bi réeree ndax dana tax ca amee ak dégg jaar jaamu tax seen maam xaalis ba bind ne ana maay badrul kamaali xaytu yemiiru qalbi yemiiru ñaari jàngi la nag bu jàng benn ba ne xaytu yemiiru qalbi yemiiru boo ko waxee xaytu yemiiru qalbi ah yemiiru moom seex hmm. moom it fu sama xol bi ne fa lay ne loolu nga xam ne moo teewoon faas boo demoon Kaolack tam loolu nga fay fekk su fekkee na nag demoo demoo Medina demoo Faas boo demee Kaolack ba tey fala waaye kañ la ko nit ñi xam xanaa bu dee ba pare ah ku dee dana xam ak kawo wala loolu rek ku danga xam loolu waaw su fekkee nag xaqaayiq yi benn xaqiiqa rek waaye nag donte te tajallaa minhaa mooy nax gaay te tajallaa minhaa minhaa du mufrad uruusu di jam uruusu yi fu jógee ne ma minhaa minhaa am ku waaye bu ñam moom waxut bi naan moom bin ka la wax dafa jàkkaarloo bàyyi na ko bin ka ma ne ko ba tey yaa xolaay waaw kon nag ëllëg ci jël laa bin haan loolu sot xaqaay waaye li ngeen waxoon léegi yàlla dafa ne alladi yuhibbul xaqa bi kalimaati yi ñun ñu ne naasiril xaqi nan la kuy dooleel alaaji Ablaay Ñas nan ko dooleelee dëkk mhm. te bul ko dooleelee saal ndax képp koo dégg mu saaga ci péyeb seytaane la dukkee mhm. mooy këlimatul xabiitatin rek mhm. son loolu saal amma nag kalimatun tayyibatun ka shajaratin tayyibatin yow daal ki saaga jàngal ko benn salaatu faatiha boo xam ne da nga koy jàng tëb naa si xarit rek mu jeex comme jàng ko ku ñëw bu fekk yoon ndox foog nga suuf ko salaatu faatiha tëb naa si xarit bi rek mu jàng mu jeex. baat bu ñaaw ku ñaaw ko moom mm. waaw yonent bi bañ ko defalee xasida boobu nga xam ne saabe dañoo mer di ki ko def ñu ngi dëgg yonent pour dem rey kooka doola ñu wax bi mu gisee yëngu bi mu seet nga xam ne bu ko ñodee boo ko dugg mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko lan mu ne ko ah kii kay li mu wax moom ñëmuñ ko wax nga dégg mu ne ko yow waxal maa la ko ba nga ko waxee moom ñu na moom la bind naan ku ñaaw ki comme kii dafa ree ne waaye xam nga ne man nga lu mënoo kii waxoon ma alaaji Abdoulaye man ta man man man ta moom lu ñaaw ndax nit mën naa moom bàyyi ba pare wëlbati ko di moom lu ñaaw waaye léeg-léeg ma téye waaye léeg-léeg ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل su fekkee nag ni alxuraan yépp benn saa la ci Seex Ahmadu Tijaan moom te saa wa benn laay la ci moom daalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa waaye li ci sant ñeent lan la dal fadlul azim ci yàlla bëgg ci yàlla moom gëm la xam nga li ma la wax nag day xam-xam yu xóot jege ngeen ko mais xam naa ne déggu ñu xam li ñu boole ak li ñu boole lépp day dellu ca jawaahirul maani yegle mo yegle longaan bi jawaahirul maani fii dama fay na ci tijaani fay na ko loolu bàyyi ko bindam seexu ko bindam léegi nag la ca biir téere ba gis téere ba ak gàddu téere ba taxoon nga xam ne ca téere lu ko noonu bumba du ko xenu loolu tax yàlla dellu ci saaroo ba tey de waaw firee bu ma alxuraan nag ni ko mag ñi daan firee waaye bu ca saaroo la wax ne matulul ladina humilu tawraat wala tawreeta summa lam yaxmiluha كمثل الحمير يحمل أسفار أسفارا جوري القرآن أنت جواب المعاني نك سورة الفاتحة نك الإنجيل نك léppam ca waaye mbaam sax mën na koo xenu waaye lu tax mu jëriñoo kon nag téere boobu ku ne mën na koo waaye boo bu ko mbaam xamee xaarteen mbaa ba doo tax xaarteen mbaa wàcc ko kër nga xam ne moo koy am ne jëriñoo ko mooy ki nga xam ne dafa tàmbalee ci baat mooy su ma leen waxoon ndax tomb boobu boo dee moom ngay gisaat dana nekk baa dana nekk yaa dana nekk taa taa tombe dana nekk ñetti tomb dana nekk chiin dana nekk xaar dana nekk jiin lépp jar na ko comme ne woon rek nga xam ak dégg da nga jël téere benn tomb gannaaw bi nag tomb yee fettax bind naa ko ci français ci benn point ma ne il est point sans lequel point ignorer point aucun point il est un point sans lequel point il n'y aurait point aucun point ana gaa yi jàng français doon mooy gis naa léegi nag gaa yi dem nañ ba def ko dégg naa wala bu dee ba def ko gëm naa gëm naa nag ci gëm rek la yóbbu ashhadu dañ ko def amoon waaye ashur ba tey ashur mooy gis naa wala naa gis naa wala naa loolu loo nekk aalimul xaybi wa shahaada shahida allahu annahu laa ilaaha illa waaw shahida allahu kon moo koy nekkee hmm? shahida kon moo koy nekkee yàlla gëm na ndax loolu koy tekk kay kon nag sharia bi maanaam li nga xam ne mooy diine ji mi ngi taxaw ci ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu googu nag bu dañee lépp rek du yaa ngi jàkkaarloo mbooloo jàkkaarloo googu nga jàkkaarloo ak mbooloo dangay xam ne gis nga leen waaye boo leen xam ne xam ne xasee ba xam ne gis nga leen doo xel yaar ndax ñoom gis nañ daan leen ndax ci ci xaqiiqa yéen ñi gisante la gis nga ko gis nga xam nga ko xam na la bëgg nga ko bëgg na la mënal

solo loolu rek beneen muy ak ndax dana tax leen di parce que cabinet yi lay déet bu jàngalee ko noonu dontale bu bu ko nekkoon jàngalee ko neneen waaye lii yëpp pour xale yi nga xam ne jotuñoo gis jëmm jooju fekkee bés yooyu ñu am luñ ci mos ñu am luñ ci mos jëmm yoo xam wala mu mer wala mu dóore waxtu wu ne bàyyi ngay ne même ba ñëwee tàggeeku ñu Bachir te mooy mag yi am mbën dafa rek bañ ne bàyyi na kooku nga xam ne lépp mbég la mbég mooy yàlla nañ ko bokk maa ngi santaan nañ booleen koo xam ne teew la mu jënd mu jënd ci carte yi doo ko leen 1000 francs maa ngi nuyu waa Malbn Video euh, di seen liggéey ak seen taxawaay macha allah di nuyu mboolem ñi seetaan ci àdduna bi yëpp euh, tey nag li taxoon ñi ñëw fii euh, xadara si jumaa si fii ñëw siyaara si suñ papa si Ahmad Khalifa Niass. li ko taxoon li li tax loolu jóg yépp mooy lancer mouvement bi nga xam ne nii euh, moom lañ taxawal bu yàggul rek te mooy mouvement dégg nga fédération ànd liggéeyal maam Alaaji Abdoulaye Niass nga xam ne biñ ko sosee léegi euh, ci weer lay toll wala sax matul weer waaw euh, bi nag li ko tax a jóg du dara lu liggéeyal maam Alaaji ak feeñal liggéeyam ak taxawu ko ak défendre ko ci côté bu nekk ba nga xam ne gëdd buñ ko war a jox ci Sénégal ak àqam danañ ko ko jox. ndax maama maam alaaji koo koo xam ne euh, nekk na koo xam ne leeram jéggi na Sénégal waaye daj na àdduna bi yëpp ndax koo xam ne moo jur alxaaji Muhammad Xalifa dégg nga moo jur Cheikh Ibrahim kooku duur ku ndaw waaw tariqa bi tey lu man deux cent millions yi personnes ñi ngi ci gannaaw Cheikh Ibrahima dégg nga ñi ngi ci gannaaw maam Xalifa Niass am njabootam gi yëpp dégg nga te loolu yëpp liggéeyu maam alaaji Abdoulaye la jógee fii dem ba Makka ñaan loolu yàlla may ko ko waaye jógee fii dem ba Fass jëlee fa mbóot ya fa nekk ci Sénégal mu nekk <clears throat> njëriñu Sénégal wax ne ana xalifatu tijaani saami wa inni jubtulookul mawaami man maay xalifa Cheikh Tidiane bu kawe bi dégg nga kooku mooy alxaaji abdullahi nag ñun li ñu tax a jóg nag du daara lu dul sos ah, mbooloo moo xam ne nii dañuy feeñal njàngaleem feeñal liggéeyam feeñal taxawaayam dégg nga défendre yi ndax gis nañ ne fii ci Sénégal am na ñoo xam ne kat ba léegi àqu Maam Alaaji xamaguñ ko ba kum neex nga jóg wax ci Maam Alaaji du la dégg nga waxtu ni ay nit di ko tudd te duñ ko tudd mukk ba yëkkati ko waaye dañ koy tudd pour yëkkati ñoom seen sëriñ suufeel Maam Alaaji loolu nag ñun loolu ñu métti la waaw te métti na njabootu Maam Alaaji yëpp donc loolu moo waral mbooloo mi sosu tey nag ñu ñëwoon suñ papa Ahmadou Khalifa nga xam ne moom mooy euh, président wu mooy parrain euh, mbooloo bi moom lañ jiital ci kanam moom ak euh, Baye Mbaye MC di doomu Cheikh Ibrahima ñoom lañ def ñooy suñu njiit ci mbooloo mi ñoom lañ teg suñ kanam ala kulli xaalin waaye njabootu Alaaji Abdoulaye yëpp a ngi ci biir ndax mboolem fu njabootu Alaaji Abdoulaye nekk pare nañ dem seet leen waxtaan ak ñoom xam ne euh, li ñu tax a jóg dara loolu rek liggéeyal seen maam euh, fexe nit ñi jox respect seen maam jox ko cër bu ñu ko jox jox ko àq bi nga xam ne moom lañ ko war a jox Sénégal adduna bi yëpp ñu ngi pukkare waa Alaaji Abdoulaye waaye ñoo ko joxagul àq bi nga xam ne moom lañ ko war a jox te kooku la ñi respecté ko ku mérito ñi fonk la ndax yàlla may na ko mu bokk ci wàllu Sénégal yi nga xam ne jël na jaaseem xare ngir lislaam taxaw waaye yemu ci loolu jël na kurusam dégg nga xare ba bakkan yëpp dégg dee xol yëpp jublu yàlla waaw ku mel noonu nag wax dëgg yàlla ku war a fonk la ku ñu war a tiitaroo la waaye ku war a jox àqam la ku war a jox gëddam la moment bi nag loolu ko tax a jox maa ngi wax ci seen làmmiñ ñoom ñëpp fédération Mame Alhaji Abdoulaye yëpp maa ngi wax ci seen làmmiñ man maay seen dégg nga naata ku rasmi maa ngi wax ñoom ñëpp ci seen làmmiñ Euh, am na kilifa yu bari ci nekk am na muqaddam yu bëri ci nekk njabootu lew na ñeseen ñu njabootu maam xalifa ñu ngi ci njabootu Cheikh Ibrahim booleem lu alaaji Abdoulaye njaboota rek jàppal ne mu ci biir kuréel gi ci gàttal daal bu buñ tënkee wax ji loolu moo tax kuréel bi yokk xaaji moom buñ ci wooyee ku yaakaar Cheikh Ibrahim wala nga yaakaar xalifatu euh, xaaji Muhammad ñu woo la ci liggéeyal maam alaaji ak luy feeñal euh, njàngale maam alaaji ak valeur am dégg ak taxawaayam yaakaar naa loolu kenn kuñ ci woo war ñëw alaa kulli xaalin carte membre yi génn ñaari téeméer lañ koy jaayee euh, am na ñu bëri fii ci mbooloo mi tey jënd nañ jënd nañ ci donc njabootu Maam Alaaji dina ci àdduna bi yëpp ñu ngi leen ci ñu ngi leen ci woo ndax lii ñuy yëngu yaakaar naa ne ku ci woo dañ ci sawar ndax ñun ñëpp njabootu Maam Alaaji lañ te ñun yëpp ñu bëgg Maam Alaaji rek lañ bëgg ndax Maam Alaaji moo ñu indil ak euh, xalifatu xaaj Muhammad borom juyee su tolaa ki nga xam ne nii ba ñëpp jaaxle ci ibnu Mayaaba moom moo teg ibnu Mayaaba place am kan mooy Maam Alaaji ñu ne moo indi si Ibrahima Niass kon nag kooku ku ñu woo ci liggéeyal ko ak taxaw bañ ak bañ bañ Sénégal gi mën a xam ak akam jox ko yaakaar naa loolu kenn du ko bañ kon ñu ngi woo ñëpp ci carte membre yooyu ne ñëpp raison ko na ñëpp dugg ci euh, mbooloo mi ànd ak ñun ci liggéey boobu euh, mbooloo mi nag euh, Cheikh Omar Foutiyou Faye mu ngi si bi moom mooy coordinateur mbooloo mi képp ku bëgg am information ci lii ñu yëngu incha allahu taala moom loolu wàll wàllam la te dana dana ko dana ci leeral li mu ci war a leeral yëpp ñi ci ñi ci ñi war a jokkoog mbooloo bi yëpp incha allahu taala moom la ñuy jokkal danañ li ñu bëgg a xam ci wàllu danañ koo xam waaw euh, Cheikh Omar dëgg ñoom ñëpp ñu ngi fi Seydi Akha Thiam euh, Cheikh Abdoulahi Niass nga xam ne mooy président bi di doomi Seydi Moustapha ñas di doomi Alaaji Abdoulahi di doomi Cheikh Ibrahim moom mooy président wu fédération bi euh, wàll woo incha allahu taala liñ ci taxawaay ñu ci war a am yëpp danañ ko am ba neex ala kulli ñu ngi ci woo ñëpp hmm. maa leen di santu bu baax di leen gërëm Alioune Cissé mooy sama tur waaw ma leen di sant di leen gërëm jazaakumullaahu xayran